alternance moom dafa daal di tànn démocratie bu nga xam dafa gën di yaatu waaye option boobu daal dafa daal sukkandiku ci ay valeur culturelle la ñu gisee sax naam diggante euh, li nga xam kat mooy ñàkk gis-gis am na waaye ci acteur politique yi ak ñi nga xam ne ñooy acteurs sociaux lii de fexe rek ba li nga xam ne daal ñu mën a dépasser suñu intérêt bopp ngir mën a xalaat li nga xam ne mooy bennoo bi ak li nga xam ne mooy tax ñuy dajale fii ci suñu réew wa ndax gisee jéem a daal di yaa euh, wàññi li nga xam ne mooy ay courant de pensée seen euh, façon ba ñu xalaatee loolu dafa mel ne lu ñu imposé kat li nga xam ne kat mooy askan wi ka ca jiitu du président la république Léopold Sédar Senghor moom mi nga xam ne dafa daal di yaa euh, fexoon ba sikki sàkk am ci benn ngàll bi nga xam ne kat mooy ñi borom xam-xam yi ak militant yi nga xam ne kat ñoom wàllum démocratie moo leen soxal la Abdou Diouf moom président la république ci atum 1981 ci dafa daal di politique maanaam parti yu bëree bëri ak li nga xam ne mooy wàllum syndicalisme ñu gis tamit loolee sax ma ngay wëy waaye itam fexe na ba Sénégal daal di amaat rek ñaar fukki at ginnaaw indépendance ay keneen yi nga xam ne tànneef li mi ngi jaar ci société bu démocratique ci ñaari alternance yi nga xam ne am na ci atum 2000 2012 fexe na daal ba loolee kat daal di gën a wéy ci société bu nga xam ne moom moom boppam waaye tamit rek li nga xam ne tam mën na si ne ko jàngat ne loolee ci wàllum taarix lay sukkandiku kon signifié benn yoon benn kat mbir mi am na lu ci salfaañe waaye tamit gis nañ ne parti africain de l'indépendance DPA yi mi nga xam ne dañ ko daal di neenal nga xam ne kat ci kuréel bu ñu jàkkaar ne kat marxiste xare bi ànd jëf ñoom tamit bokkoon nañ ci loola tax na ba ñi nga xam ñooy acteur politique ak syndicat yi la ñu yaakaar ne kat ñu ngi ci euh, lu méttee métti ba tax na démocratie Sénégal di daal di évoluer déedéet kekk mu daal di toltolaan yaakaar nañ la ñuy nërmeelu la waaye nag ci ay jafe yu metti ci wàllum militantisme ak ñi nga xam ñoo bokk ci yéen ci ay parti démocratie tax nañu bëree bëri gëm ni kat wàllum résistance lu mën a nekk la kon dafa mel ci politique yi ak ci syndicat yi ak ñi nga xam ñooy askan wi gisee ne kat Sénégal gi nag jamono ji lu bëree bëri daal ci wàllum démocratie pluraliste ci la ñu mën di sukkandiku liberté de presse dafa mel ni dañ ko salfaañee yenn intellectuels yi ñu bëree bëri sax bëggatuñ joxe seenum xalaata ndax ragal kon yaakaar ne société bi nga xam ne kat dafay évoluer lu bëree bëri da ci am ak risque ñi nga xam ne ci borom xam yi la wàlluma kaaraange bi nga xam ne moo delluwaat ci bërëb liggéeykaay ak ñi nga xam ñooy aska wi lu bëree bëri gëm na ni kat dafa mel ni lu xaw a ànd ak nasaxte kon tabax société bi nga xam ne daal lu wérte wóor moo ñu nekk benn sukkandiku ci état de droit ak wàllum république waaye itam fexe ba xool ni ñu gouverner ak nañu opposé wu ci at yi nga xam ci la ñu jëm loolu kat mooy illa ju dëgg kon ñu gis kat jamono ji critique na critique bu nga xam ne démocratie pluraliste dafay daal di exiger ku ci nekk xoolaat sa bopp ak na ngay taxawee ndax bu deful nank rek ca la ñuy basculer ci violence loolee dana metti lool te dana yàq société bi